alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk jullit di fi mën a nekk noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di ndokkeel ci weeru ramadan wu tedd bi ñu nekk di leen ndokkeel ci fukki fan yu mujj yi ñu nekk muy waaj a jeex di weeru xewal di weeru yërmande di weeru ndimbal waaye xam ngeen nag ne borom bi subhaanahu wa taala mi santaane woon woor weeru koor moo santaane bu weer wi jeexee it ndigal leneen lu mu sant jaam yi te jaare ko ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mim doon jox ay kàddoom di ko yebal ngir mu woo mu jottali ko nit ñi loolu mooy lu ñuy tudde zakatul fitri wala sadaqatul fitri wala ni koy tuddee zakatul abdaan te muy muurum koor wala bokk muddum koor kon baax na suñu tolloo ci waxtu yi ñu leeral nit ñi muurum koor moom mooy lan ban acte la am ci lislaam ba nit ñi mën a xam taxawaay bi leen ci war lan njëriñ moo ci nekk ki ku koy def njëriñ luñ ci war a séenu kañ lañ koy génne kan moo koy génne su ko génnee ba noppi kan kan kan la koy jox buñ koy génnee ci lu ñu koy génnee yooyu yëpp yu mat a leeral la bisu ayit it nuñ bëggee nit ñi dundale ko nii loolu yëpp baax na bi ñu xam ko kon jataay bi incha allahu taala ci loolu lay jëm ñu bëgg cee laayante biir ak ko jullit ñi kon ngir leeral àtteeb muurum koor mooy dañuy wax ne farata la tajibu bis sunnati loolu la téere yi di wax xadis yi yëpp day wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal farada rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zakat al fitr kon moom yonent bi moo ko def farata nga xam ne kon farata ni ngeen ko xamee mooy loo xam ne bu la waree te defoo ko te amoo ngànta ci ñàkk def ga da nga ci am bakkar kon nañu xam ne murum koor lu ñu farataal la ci bépp jullit boo xam ne sarte yi tax mu war la daje na ci yow kon loolu mooy atte bu njëkk bi kon farata la na ko ñëpp xamee noonu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax leer loolu ndax hadis bi wax ne farada rasulullahi farada borom xam-xam dañuy wax ne dana firi nattale na waaye daan beneen hadis bu ñëw boo xam ne da da caa wax ne waajiba la sadaqatul fitri waajiba waajiba jooju moo firi farada ji ne kon farataal lay tekki kon lu ñu waral la ci ab jullit mu war a génne muurum koor su waxtoom jotee loolu baax na mbokk yi xam ko njariñam nag lépp lu yàlla santaane wala yonent bi jottalil ko ko lu am njariñ la doonte ñun xamuñ woon njariñ la it nañ gëm ne lépp lu yàlla digale def leen njariñ nee na ci nekk lépp lu mu tere ne bàyyi leen lori nee ci nekk loolu foofu lañuy ñu tàmbalee jullit loolu la war a gëm waaye suñ seetloo nag digal li dañuy fekk ci biir njariñ yu ñu mën a teg bët bokk na ci njariñi murum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne day nekk tuhratan li saimi min al lagwi war rafat aji woor gi liñ ko sant ci koor gi ci mu sàmm cëram yépp ñaare dana ko jafe léeg moom ay rëcc rëcc laal lu mu warta laal wala mu xool lu mu warta xool yooyu yépp day wàññi koor gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nag su génnee mburum koor da koy laabal ci manki manki yooyu yépp yi dul noonu yi mu doon wax wala mu def ko te rëcc ko nga xam ne man naa wàññi tuyaabay koor ja boo génnee murum koor da koy réparé kon day jàng say jëf nga xam ne kon bu sa bu fekkee ne woor nga ba koor gi jeex nga génnee murum koor day boo nga rafet njort ci ne koor gu ma sëkk gu manqué wu dara moom lañ la dencal kon loolu benn njëriñ la ñu xam ne kon génne ko day laabal aji woor ji ci yu dul noonu yi nga xam ne ay rëcc rëcc yi ñu ko tere woon la te mu juum ba def ko ci biir gi waaye aw ñam la ñeel miskin yi xéewal gu ñu jox miskin la ndax xam ngeen ne bisub bisu mbégte la taraanga la ju yonente bi sallallahu alayhi jagleel xeet wi lu dikkee ñëpp war cee bég ku am jafe-jafe it wër loolu tax lislaam soxla su fekkoon euh, am na koo xam ne bisu it daa ñëw amut mu lekk xanaa wëreelu du yalwaan kooka buñ ni ko ne bisu bisu mbégtal yi du ko mën a yëg lislaam nag bëgg su bis boobu dikkee ñëpp ñu war a génn ñëpp génne ñu jox ko ñu néew ñu doole su boobaa muurum koor moomu dana tax bis bi ñoom ñu yëpp ne bokk nañ ci ndax seenu njaboot dañ lekk ñoom ñu lekk ànd ak nit ñi mbégte kon ñaari njariñam noonu day laabal aji woor gi waaye day jëriñ miskin ba mu mën a bokk ci feet gi day jëriñ miskin bi ba mu mën a bokk ci feet gi loolu moo tax yonent boo xam ne kon tu'mal li saa'im waaye tuhuratun li saa'im wa tu'matun lil masakin kon ñaar yooyu baax na mbokk yi xam ne luñ mën a jariñoo ci génne mburum koor la suñ ko génnee ci waxtoom xam nga bisu it dafa am solo ba boroom xam dañuy wax ne sax dañuy tere nit ki xëy bañ cee defaru ndax day mel ne taraanga jula borom bi defal te yow bégoo ci taraanga ci la kenn ku ne boo xëy war ngaa sang ba set yére yi nga gën a rafet la nga sol ko ngir wan borom bi gis ni bis bi mu la may kat teraanga ji yëg nga ko te naw nga ko moo tax it ñu bëgg nit ñooñu néew doole bis boobu bu néew doole gi feeñ moo tax muurum koor danañ ci wax ki mu war du bokkut ak asaka mi nga xam ne dañ lay wax ne da nga am alal ju baree bari asaka muuru ko asaka door laa war muurum koor moom bisu eet bi boo amee dépense yàgg sa njaboot bu defee dara la ci des muurum koor war na ci kon kooku moom sën duñ ko ku woomal amuñ som bu ñuy tudd ne la il faut nga àgg ca mu door laa war ba lépp bëgg mu yaatu ba ñu néew ñu doole ñëpp mën a bokk ci ci ci mi kon bisu it ku am ku ne li ngay li ngay li ngay dépassoo ci bis bi yàgg sa njaboot bu desee la ca des murum ko war na ci kon euh, loolu mooy njariñ yi ci mën a séenoo ak nag li ñu waxoon ne la daf ndigal yàlla moom la ci nekk ci tuyaaba kenn xamul mu toll ndax yonent bi moo waxoon ne ku def wala boog alxuraan sax ku wax man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha benn baax ku ko def borom bu fay la fukkam dala ci tegal juróom-ñeent ak boobu muy fukk te muurum koor génne ko ci benn ci baax yu la kon bari na njariñ waaye ñaar yooyu ngi tudd rek doyoon na war na tax nit ki fonk ko te di ko daal am na beneen asar wala xadis buy wax ne dañoo bëgg yit ñu fexe ba bisu it miskin yi bu ñu wëreelu di laaj ndax bisu mbégte ki amul bay wara du laaj moom yëgul mbég ma moo tax ñu wax ne agnuhum an tawaafi fi hada al na ñu fexe ba bis boobu moom bu kenn wëreelu laaj moo tax mu bëgg ñu di ko teel a joxe bu ko defee kenn ku ne xam ne tey am nga dépense bu doy sëkk yàgg sa njaboot ngir mën a bokk ci mbég mi nu mu waree loolu danañ ci dégg ne kon képp koo xam ne bisu it andil nañ la lu doy ba nga mën ca añ jëfandikoo ci bisu bi yàgg sa njaboot lislaam nag dootul rafetlu it ngay wër di jullikaay di yalwaan ndax ba bañ ba daa bëgg bis bi taaru ba kenn euh, ñàkku kenn du ci feeñ lottu kenn du ci feeñ loolu it baax nañu di ko fàttali mbokk yi kon ku ci am loo jàpp ci bis bi na xam ne nag lislaam du taamu ngay génn di yalwaan ci bis boobu ndax daa bëgg mu nekk bisu mbëgg ñëpp bokk ci mbir mi loolu baax nañu xam ko baax baax nu muy toll murum koor nu muy toll moo di ne muurum koor ab euh, saax lay doon saax saax nag ab nattukaay la boo xam ne dañuy wax ne mooy ñeenti mudd ci muddu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñeenti mudd ci mudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeent yooyu ngay boole muy benn saa moom la kenn ku nekk di génne muddu nag am na nit ñi war nañoo def yitte ci di ko am ndax li tax eh, cosaanul muurum koor doonutoon peese waaye natt natt la te xam ngeen lu ñuy natt yi ñi natt seen diisaay day wute doonte wenn xel la sax ceeb ñaari ceeb ceeb dana am doon ñaari façon diisaay ba wute nga xam ne tey boo peesee fii peese bi duñ bokk kon nattukaay boobu ku ko am li gën mooy ñu natt di ko génn di ko joxe su fekkee nag nattukaay bi amul borom xam-xam wax nañ ci muy toll wax ji gën a lëng gën a am solo nga xam ne ku ko def moom mën nañoo wax ne génne nga bu wér lu mat xanaa day ëpp waaye yeesut mooy kenn ku ne nga génneel ko ñaari kilo ak genn wàll waaye nag li gën a doon far mooy ñu fexe ba am nattukaay bi ci am na nag nattukaay bi mooy mudd mooy lii lii muy mudd nga xam ne tey bari na Sénégal bu fekkee ne bëri fuñ ko jaay it boroom kër bu ne war na daf yitte ci fexe ba kuy dem fu mel ne makka al makkatal mukarrama arabi saoudite ñi fay aji wala ñu umra ji kooku yóbbante mën na lu ko fa wutal lu yomb la fay jarte diisut du diisali bagage lii moom la ñu natt ñeenti yoon ba mu ko ba mu fees bu maase nga sotti ba mat ñeenti yoon mooy benn saa loolu ngay jox ngay génneel bopp bu ne ñi nga war a génneel ñëpp nga génneel leen lu toll noonu kon nag baax na ñu def yitte kon ndax bu buñ dee peese it dëgg la wuute gi am ci peese yi kii na ñaari kilo nangam kii na ñaari kilo rek kii na ñaari kilo liy bar ñi na ñaari kilo genn wàll li ko waral mooy diisaay yi ñëw bokkul ndax pepp yi bokkuñ diisaay ceeb yi bokkuñ diisaay kon nag li gën mooy ku mën a am nattukaay bi bu fekkee da ngay dem bay génne ñam wi nga génne ko ci nattukaay boobu mu gën a baax daf ci yitte loolu bokk na ci jaamu yàlla te lu mën a am la kon daf ci yitte baax su yàlla dogalee nag xëy na jàpp niwut wala boog euh, yombul fa ma nekk kon nattal day ci ceeb bi nga xam ne ci lañ koy génne fi mu ne ñaari kilo ak genn wàll ngay génneel bopp ne ñaari kilo ak genn wàll ngay génneel bopp ne ci luñ koy génne mooy li ëpp ci lu waa dëkk bi doon dundi dañuy wax ne ramadan bii ñu nekk li fi nit ñi doon dundee la gën a noot ci seenu dund kuy génne muurum koor ca nga koy génne loolu nag ci Sénégal yëpp mën naa wax ne fi mu ne li gën a nut ci dund bi mooy ceeb kon mën nañoo wax ne fi nii ci senegal muurum koor ceeb lañ ko war a génne ceeb bi nga xam ne moo moo moom la nit ñi di dunde gën a not ñu génne ci kon koo xam ne am nga mudd bi ñu wax kenn ku ne nga nattal ko ñeenti mudd ak genn wàll eh, nga nattal ko ñeenti mudd yu mat sëkk koo xam ne nag da nga koy peese peeseel ñaari kilo ak genn wàll mooy li gën a mat ki koy génne mooy képp koo xam ne wax naa ko sànq bisub eet bi am nga dépense mu des dara lam des bu fekkee ne mat na liñ la sant nga génne ko su ko matul génne la nga am waaye daal na nañu xam ne képp koo xam ne bisub eet bi sa dépense des na dara lam des muru ko war na ci dana génneel boppam génneel ko soxnaam kon bu dee benn soxna ak bu ko ëppee soxna yàlla ni war a dundal nga génne leen say doom yu góor ci majeur gut nga xam ne màgg guñ ci ndaw lañ toll mbaa boog dañoo am ay gàllankoor bu mënuñoo liggéey waaye doom ju xas majeur mën a liggéey amul benn gàllankoor kooku bàyyam waratu koo dundal kon doom ji ndaw yi ba ba ñuy majeur yàlla war a génneel murum koor bu dee yu doom yu jigéen yi ba ba am borom kër yàlla war a génneel murum koor say wayjur buñ amut sa baay ak sa buñ amut yow yaa leen war a génneel murum koor bu fekkee ne yow kenn la genn doom nga yaa war a génneel sa baay ak sa yaay bu ngeen ëppee kenn te yéen ñëpp ngeen am yéen ko war a bokk bu fekkee ne kenn mënu ko caa coobarewu ngeen seddoo ko ku ne génne loo xam ne bu ngeen ko boolee seen murum koor ñoom génn loolu baax na xam ko kon ñooñu la ko nit ki génneel loolu mooy li ko war amaa su ko génnee loon keneen it koo xam ne xëy na daane ci këram bokk ci njabootam di gerbaatam wala muy koo xam ne mooy mooy jawriñam ne ci ronam su bàyyi coobarew la waaye waru ko nag waaye su ko defoon nit mu nekk coobare wàcc kooka koo xam nag bokkoo ci ñii kon yow lay war ni ki doom joo xam ne majeur na man a liggéey kon moo war a génneel boppam muurum koor su ko amee su ko amul nag wàcc na ko su ko amul nag wàcc na ko waaye ki nga xam ne nag war na ko mu war koo génne na xam ne du ko wàcc su ko génnewul day nekk bor bu nekk ci losam masalan waa ji amoon na dépense mu des gisu it waaye génnewul murum koor ba bis bi jàll bor bu nekk ci loosam la war na ko génn ba tey am na bakkaar it ci yeex gi nga ko yeex a génn ba waxtu weesu kañ lay war murum koor mu ngi war borom xam-xam dañ ciy wax ñaari wax am na ñu wax ne bu jant bi sowee masalan tey bu ñu séenoo weer ba gis ko rek la fa tàmbulee ba ba ñuy dem jàkk ji di julli ji waxtu génn murum koor la am ñu ne déedéet balaa war kay mooy fajar bu fajar fenkee ci bisu it bi fajar googu lay lay door a war la fa tàmbalee ba ñuy dem jàkk yi di julli ji ñaar yëpp amu ci benn amu ci solo waaye lu mën a xew kon diggante bu lañ koy génne njëkk jant bi njëkk weer wi di feeñ kon muurum koor waragul kenn wuute googu li muy jariñ mooy tey bu ñu ne bu ñu waxoon ne ñu wax ne bu jant bi sooy rek weeri feeñ murum koo war na bu fi nit yokk woon ci kër gi wala mu manqué fi ci lay feeñ masalan tey nit ku fi amoon doom mu juddu ginnaaw bu weeri feeñee njëkk fajar bi jot ñi wax ne muurum koor bu jant bi sooy lay war kon xale boobu du ko war ndax muurum koor war na mu door a juddu waaye ñi wax ne fajar la suba da koy war bi ci des mooy ku fi amoon soxna may la soxna andi ko ci bis boobu ci guddi googu bu fekkee ne jant bu soley war kon soxna soosu doo ko génneel muurum ndax muurum koor war na mu door ñëw waaye bu nga ne fajar la war koo génneel bu fi ñu faatu woon noonu ki faatu waxtu woowu ñi wax ne muurum koor mi ngi war ginnaaw bu jant bi sooyee kon kooku muurum koor war na ko mu door a faatu kon nañ koo génneel waaye ñu wax ne fajar la su boobaa waru ko ndax fajar laa jo fekk na mu dem kon njariñ li wuute gi foofu lay nekk waaye lu ñu mën a xew rek sopp nañ ñu génne ko ginnaaw julli fajar maanaam bu ñu jullee suba daal ba ba ñuy dem jàkk ci ndiggéene soosu lañ bëgg ñu génne ko fi loolu nag ñu ngi koy wax su fekkee ne dana mën a àgg ci seen borom na mu waaye su fekkee nag ne laaj na waxtu manis na koo jiital tuuti am na ci boroom xam-xam ñuy wax sax ne manis na ko génne ñaari fan wala ñetti fan avant lu mooy mazhab mali su fekkee ne dañ koy jox ilimaan wala dañ koy jox sëriñ bi ne ci dëkk bi ñu di ko séddale wala ñu di ko jox chef de bi maanaam daal koo xam ne nit ñu niw doole dañuy teew fi moom wala moom day jëflante ñoom xàmmi na leen xam na leen ñu mën koo jox asaka ji ngir mu jëliñ ko séddale kooku mën nañ ko ko yit ñaare fan aw